dañ koy regretter parce que ce qui s'est passé est, est inexplicable parce que au-delà de tout Sénégal en son article premier ci constitution bi dañu ne c'est une république du peuple pour le peuple mhm. et par le peuple ce qui veut dire que c'est le peuple bi moom moo nekk au centre de tout il est inconcevable mhm. qu'une personne porteur de projet am benn envergure populaire ñu mën ko tere mu dem à une élection présidentielle que puissent être les raisons par ailleurs mm-hmm. parce que in fine qu'est-ce qu'on fait on est en de priver à un peuple dañuy priver tey une population sénégalaise ñëpp xam nañ ñu bëri nañ mm-hmm. le choix de pouvoir choisir seeni président et ça c'est inacceptable pour une démocratie. Ah, et que faites-vous euh, des yi nga xam ne euh, dañoo régir un peu ni ñuy doxalee en société le code électoral par exemple euh, wala sax euh, la justice parce que am na condamnation yoo xam ne ngi teddu ci ndoddam yooyu yëpp aussi naka naka lan ngeen ciy wax. ndax xam nga c'est la constitution qui est au-dessus de tout et li ma la cité nii c'est un article de la constitution parce que mooy base bi lépp. Mhm. lu mën di am de lors que dafa nekk en contradiction ak li ak volon ak l'article 1 de la constitution c'est-à-dire priver la volonté populaire amatul sens d'autant plus que xam nañu lan moo tax bokkul fu mu jógee mhm. c'est le président Macky Sall qui en 2018 moom mu modifié la loi électorale pour empêcher à quelqu'un de participer à une élection présidentielle. À l'époque, Sonko n'avait pas encore de problème, donc c'est pas non, personnel. Non, moi, mais à l'époque, c'était avec Khalifa Sall. Mm -hmm. l'article de la Constitution que disposition bi mu ci defoon mhm. existé wul tout ba ne pour être il faut être électeur moom moo ko si def c'était justement visé pour éliminer quelqu'un te loolu noonu c'est ce qui est anormal mhm. parce que au nom de quoi on peut ne pas être électeur mhm. mais si le peuple sénégalais bëgg yow nga nekk seen président mais pourquoi on priverait à ce peuple là ce droit là mhm. te dossier Ousmane Sonko ñëpp xam nañ c'était une volonté manifeste depuis le début te ko wax ak koo waxul tout le monde